salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi Ousmane Sonko comme ni nu ko waxee rek atte nan Lamine bi wax rek deux cent million léegi bajo bu ñëwee moom moo gën a seer parce que moom ba muy ñam ci bajo bi boobu noonu jamonoy Covid la lépp a tëjoon bajo yi day tëj négoce yi tëj nit ñi dul liggéey ñëpp tëju ci kër yi moom bay bajo di jafe ci la am bajo léegi nag bajo bi bu ñëwee ñu àtte ko war a ndox moom fa daana analyser ko loolu dina toll ci trois milliards parce que bajo Covid la laal bajo Covid bajo Covid nag virus bee ko topp virus bi moo ko topp moo tax ba tey nii moo ko indi lii bajo Covid la laal bay bajo di seer booba la am bajo Covid la woon nga xamante si ni ñëpp ngi ci ñëpp ngi ci néeg yi négocier lépp tëj ca la am bajo ba bajo di jafe moo tax atte ba dina seer lool le 16 lay doon le 16 mais le 16 mai la ñuy atte bajo bi waaw. kàddu gi moom attanan ko pare